لي سكينة بكل الجنة من bu noppee te wér nañ ko ko joxal Serigne Mountakha bu ci yàlla dogalee leneen nañ ko joxal Serigne Mountakha bi mu noppee ñu yot ko Serigne Moustapha sëriñ Serigne Moustapha ne nañ ko ko joxal Serigne Mountakha looloo tax nag kaamil bu bàyyi koo kër borom daaru di alxuraan jëm ci sëriñ Serigne Touba dajeeg euh, Serigne Modou Kara Mbacke Noreyni dikk di siyaare si bàyyi di taalibe boroom daaru fa tabaarakallaa firnde la jërëjëf. ma ne ziar bi moom du ziar la boo xamante ne bi moog ziar yëpp a yem. xanaa li nu ci yokk rek mooy taalif bi nga xamante ne bi def nañu ko te ngeen war koo jël ci xale bi ah, te ñu def ko ci sëñ bi. ndax taalif la bu nu ñor boo xamante ne bi bu nu sañoon Sénégal gépp déggu ko moo tax nu bëgg nag. xale bi balay dem ndax taalif taalif bi mooy matali lépp ndax li ma leen bëgg a wax dafa nekk ci taalif bi dañu ñëwoon di ziar rek ak itam euh, feeñal sunu yéene ji nga xamante ni bii dañuy bëgg fu liggéeyu Serigne Touba bi yam rek mu eggale ko fa ko bëgg a eggale waaw te mu ànd ko tal bismillahi moom mi may jàmba mu tala def dara asalaatu wasalaamu ala nabi may dara وآله وصحبه وخير خديمه الشيخ أحمد بابا بالعيش موددرا الشيخ سيدي المختار مدتو جا الاربجا am juróom ñaari ati xilaafa gi laa di sara yal na ko ku tedd ki teeroog léegi sëriñ baara nangul ko ay jëfam ci yoon yi moom doomi sëriñ baara ki ko wutu tey ku ñu taamu ku teddi ki yàggal ko ba xayru na maa iga maamam wax mu doon ca dara bu fi yàggee te amug wéer waa réew mi danañ kontaan ku am ci leeri aw turam yow dootoo ñàkk dara mim nun ta tombe xaalif ku àcc yan nara almuntaqa di tur wi daa lamboo dara te 15 mooy 6 doon jihaad sit est ouest nord sud wallahi yaa yore dara alxamis ëllëg ay doon sa fukki fan juróom ci boppu xilaafa gi yal na sottal dara amin bi jaahi ahmad alxadim moom mi la fi teg bu la ay jajjege fen bu dara man ci yow dara nangul ma tey ji ma doon alkaatib muridiya turu général bi jox naa la ko hadiya man duma dara nangul ma ko ngir sa maami la fi teg te fonk la lool def ma nii ni mu ma def ba tax ma di niru dara jaayante naa ak yow tey ci tooli bamba fépp fas yéene liggéeyal yoon wi ndax jëf rekk moo di dara damay takkaat sama laxasaay maa di soldaaru bamba di nekk sab alkaati buy géeteroo ndete ma dara doonoon naa fi ab xaj bu sëriñ bamba bu daan mbawu mu soppi ma gayndeem guddaan ngaru turam man mi kara mu may ma may kar ndaw ñi taañaañal tañax tañax ba ñëw ci biir bamba fépp ngir xam ni moo di dara jërëjëfe sëriñ Touba la gën a yëppi fowee moo ma may ma siiwal ko ci ndaw ñi ndax moo di dara jaamu yàlla goog dara mënu koo yàq ndax imaamu akbar moo ni sax leen ci moo di dara mbàkke tey fii lay yem beneen yoon dégg ma te nangul ma li may ñaan doonte tekkiwu ma dara wasalaamu ala man ittabaxal huda li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaasal minna